demal quotidien ñu dem euh, ayca Walf mi ngi noonu Tribune Libération Le Soleil le quotidien baax na je pense euh, suppression HCCT CSE euh, premier barrage euh, voilà euh, les gars gis ngeen keroog xibaar bi ci samedi ji commission des lois bu assemblée nationale rejeté projet de loi bi nga xamee ni liñ ci jublu tas HCCT ak CSE Chérif Euh, comme ni ñu ko waxee euh, tey jii ce sont les choses sérieuses qui commencent euh, fële ca assemblée nationale ak plénière bi lan la ñu fa mën a xaar. bon li ñu fa mën a xaar je pense que am na loo xamante ne nuyoo na samedi muy commission technique bi nga xamante le ministre lui-même de la justice teew na fa député yi une trentaine yi nga xamante ni membre de cette commission la ngir waxtaanee li jëm ci suppression ñaari institution yooyu muy au conseil des collectivités territoriales ak euh, conseil économique social environnemental donc mën nañoo jàpp ni waa benn Bokk Yaakaar comme ñoo fay majoritaire ci assemblée nationale dañu continuer ci logique bi nekkee maanaam commission bi euh, def. Euh, samedi maanaam rejeté li nga xamante ni moom mooy boobee projet de loi parce que initiative la bu jógee ci gouvernement bi c'est logique parce que ñoom ci boppam ki fi ki ki ki fi nekkoon président Macky Sall nga xamante ni moom mooy seen kilifa benn benn institution moo ko créé li tax mu créé woon ko sax dem na ba à travers un référendum nga xamante ni 2016 la muy HCCT bi. au conseil des collectivités territoriales muy la même chose bu fekkente nag conseil économique social la boobu c'est vrai que fekk na ko fii mais daf ko gën a yokk leneen parce que par environnement moom moo ko ci yokk parce que bu njëkk noonu wax rek conseil économique social donc logique boobu la nekk même si président Bassirou Diomaye Faye ak ci programme am ne woon nañ ñoom bu ñëwee institution budgétivore moo tax dañ leen fiy jëlee muy ñaar yooyu nee nañ danañ sakkanal li nga xamante ni moom mooy 15 milliards yi jëm ci euh, buñ fi jëlee ñaari institution yooyu donc xëy na daf ko def pour politique parce que bi muy yóbbu loi bi foofu ci assemblée nationale xamoon na ni sax mënu ci am ndam parce que booy am ndam nee nan euh, loi constitutionnelle la xëy na mindi na ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo boo koy fii jëlee il faut majorité trois cinquième donc bu dee cent soixante cinq député la bu dee ñëpp teew nan il faut quatre vingt dix neuf député te fii amul benn groupe parlementaire boo xamante am nga lim boobu maanaam quatre waa PUR ne ñoom nee nañ dañuy resté ci logique gu Yewwi dinañ euh, maanaam voté pour ñu jëlee fi loi bi mais PUR bariwul parce que PUR boo xoolee onze député lañ am te jafe-jafe sax am na ci groupe parlementaire boobu waa taxaw woo fa nekkoon génn nañ ak seen treize députés ya ndax ñoom léegi ay non inscrits lañ te comme boolewuñ leen ci ñoom it gis nga ñu muy Abba Mbaye ak ñoo ci dégg gëmma ni bon c'est vrai que ñoom bokk nañ seen programme ñu génn ci mais ànd ak waa Yewwi Askan Wi ci boolu dina nekk xëy na loo paradoxal moo tax xëy na président bi bu fekkonte ni bëgg na am ndam ci lu ni mel ci assemblée nationale mu comme ni ko gars yi waxee waxtaan waxtaan mooy bu fekkente da ngay supprimer une institution da nga diisoo ak nit ñi c'est vrai que yow la Sénégal ay fay yaay dogal mais par élégance républicaine dafa bëgg yenn yi boo koy def nga waxtaan ci ak nit ñi Macky Sall loo ko mën a sikk-sikk yu mel neen bu daa am daa nga gis muy waxtaan bi ci mujj même rapport élection yi gis nga il a réuni les présidents d'institution ngir yë xëy na mën na nekk yëgal informé parce que yow président jël nga li nga xamante moom mooy seen frère yi bu na rey seen frère rek mooy ñeneen ñi nekk ci yeneen institution yi te ñoom ñu jëm ci élection yoo xamante ni bëgg nañ faa am dara su ko defee donc bennoo dina gën a tas parce que tas na ba pare mais surtout APR bi nga xamante mooy parti bi nga xam ne gis nañ taxawaay bi donc lay xew assemblée war na mën a bett kenn bu fekkente ni kon assemblée nationale bi rejeté na loolu te góob ma ni li mu am ci histoire bari na maanaam assemblée rejeté ab projet de loi parce que lu ci bëri ñi ko doon def dañ fa doon. première voilà moo tax moo la ko moo tax man la assemblée bu rejeté projet de loi parce que amoon na ci juin mais juin jotuñoo voté 23 juin dañu dem ñu retiré projet de loi bi mais député yi rejeté woon ko kon noonu dafa dem ba ca président Abdoulaye Wade ci boppam moo ne maa yóbboon pro projet de loi bi retiré naa ko mais gis ab projet de loi boo xamante ni dañ ko rejeté man mosuma ko gis parce que li daa am mooy yow président da nga daa am majorité assemblée ba loo fa yóbbu ko mais moom amul majorité pare yóbbu fa loi bi xëy na day politique pour jaxase député yi ak opinion bi et beneen bi mooy dégg nañ aussi un ministre hier bu wax loo xamante ni je pense que donc l' argument sur euh, institution budgétivore ça ne tient pas muy Moussa Balla Fofana hier ca i rajo wax na ne bu fi jógee dañu créer ay pôle territoire et cetera loolu boo ko defee yaa ngi yaa ngi jural xaalis boo xamante ni sénégalais yi ñoo koy ñoo koy jëfandikoo donc bu fekkante ne dañ ne dañ fiy jëlee institut ngir sakkanal nga ne boo paree tamit da ngay créer beneen institution loolu je pense que loo xamante ni pour sakkanal bi euh, ñu bari dañoo jàpp ni que c'est beaucoup plus dañ leen jàppe ni que ñoom c'est pour entretenir une clientèle politique parce que moom sax mi koy wax naan jël ay euh, politiciens jox leen ay 4-4 Euh, carburant salaire bu duun. tout ça 4-4 sax amul en réalité 4-4 sax amul boo jëlee ci inci à part membre bureau yenn institutions yi ñu des ay indemnité la am te nit nag bu fekkante ne ay ay leen nga jëlee leen dëkk bu sori fu mel ni ay Jolof wala Bakel ñu ñëw fii war a participer ci ay session à la couleur yàlla leen war a dëkkal. député yi ci boppam gis nga leen même affaire oto yi amatul parce que dañ dem ba yàgg ni joxatuñu oto député dañ ko war a respecté ba nga xam dafa war a am oto parce que état aussi lim laaj mooy liggéey bu ñu bëggee liggéey dañ am oto mais député yi dem nañ ba finalement dañ leen koy jox xaalis ñu xool ku nekk na nga jëndee ci oto te loolu bokkut sax li nga xamante ni moom mooy jëmal oto mais bu fekkee ne dañ fi créer leneen ci leen ba nga xamante bu dul institution yi constitution Sénégal ñu bàyyi ko mu noppalu parce que de ba xam ko bu doon a malade ne opéré nañ ko fu ne daanaka médecin bi wala chirurgien bi amut fenn foo xam ne war na faa mën a xotti wala ndax coono bi nga xamante ni suñ constitution bi mi ngi koy sonn voilà euh, Alaaji Malick euh, yëf yi tamit comme ni ni ko Chérif waxee mën nañu ko jàppee bataille euh, politique ay tactique yoo xam ne ni njiitu réew mi ngi koy utiliser tamit pour am gain politique parce que yëf yi dafa mel ni euh, jox paaka sa frère d'arme pour mu faagaagal keneen ki. waaw loolu la ñuy wax fratricide te gëm naa ni euh, ñi nga xam ni ñoo fa nekk tey euh, di majorité bi fi nekk duñu ko def donc looloo waral ñu rejeté déjà en commission c'est une première ñu rejeté ci li nga xam ne c'est une loi constitutionnelle. Mm. loolu dafa dem ba jur tey jii lu nga xamante ni nii mooy ñaari. institution yu mag yu nekk à couteau tiré muy le pouvoir ñaari pouvoir yu mag le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif te loolu yëpp li nga xam ne moom moo ko lal tey c'est des stratégies de politique politicienne daanaka ñii dañu taxawee position wu œil pour œil dans pour dans ginnaaw da ngeen a humilier Assemblée nationale nanguwu leen fa ñëw def déclaration de politique générale snobé nu ñun tamit dinañu am fulaak fayda ju toll ni loi bu ngeen fi indi duñu ko voter dafa mel ni donc réponse du berger à la bergère la donc euh, mënuñu woon xaar ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñu ñu ñu ñu ñu tas euh, mm. ñu d'accord pour ñu tas ACCT ak conseil économique social et environnemental cela la sans dire mm. donc tey ce serait même Euh, quelque chose de bu nga xamante ni c'est contradictoire mi ngi mel ni ñu jox ma paaka ni ma demal nga rey Cheikh Tidiane je ne le ferai pas donc c'est c'est aussi simple que ça jarul ñuy expliquer explication yu extraordinaire pour que les Sénégalais puissent comprendre li nga xam ne tey moom moo fa xew tey jii en plénière euh, <laughs> dina di boo demee assemblée tey les coups vont vont vont voler il euh, y tey ay joutes verbales yu nga xamante nii lu neex waaye dina ko fa wax te loolu dafay wane rek malaise bi nga xamante ni ni installé nañ ko fi mais en tout état de cause le président de la république dafa am dynamique bu mu nekk mooy tas assemblée nationale gis nga conseil constitutionnel wax na ko ni am nga ci sañ-sañ à partir euh, du du du septembre beneen bi ci des aussi mi ngi ci dynamique gu tas ñaari institution yooyu mais pour mu tas ko dafa am ay voies yu nga xam ni ci la war a jaar loolu daaw da bu ñëwee ci kanam dina ci gën a yaatal gën ko leeral pour ñu xam ne nekkul un facile nekkul lu nga xam ne da ngay tëb tëb rek ci sa coobare bopp nga defee ko na mu la neexee. Hmm. mais en tout état de cause tey nekk nañ ci situation bu nga xam ni ça aurait pu être évité. Hmm. parce que malheureusement la crise euh, institutionnelle dont on parlait est en train de germer entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. voilà euh, Daouda euh, c'est c'est le sujet du jàngat mais dañuy ñëw ci quelques kii yu ndaw rek par exemple li ki doon wax sànq président forum du justiciable. di wax ni que lu ni mel mën na indi instabilité ci euh, institution euh, yu Sénégal yi da koy fragiliser est-ce que ànd nga ci euh, li mu wax. wa waaw ah, ànd naa ci dans la mesure où bu fekkee ne chaque fois dañuy def dañuy jël benn institution daal di am fu nga xamante dañ koy classé même sur su suñu constitution ñu consider comme institution mais chaque fois institution bi. ñu koy dindi wala di ko dugalaat à tout moment mais dafay nekk lu nga xamante ne effectivement dafay fragiliser sunu institutions yi et puis dafay fragiliser également sunu sunu texte yi parce que Chérif wax na ko léegi dafa mel ni benn corps bu nga xamante ne da koy opérer opérer ba amatul fenn fu nga xamante ne fépp am na ay points de suture ba nga xamante ne doo xamante sax fan ngay opérer te voilà tey jii boo xoolee tous les présidents yi fi jaar en tout cas man yi ma fekkee bokk ñoom ñëpp bi ñu ñëwee dañoo supprimer institution ba pare demaat ba ci biir indiwaat institution Sénat mu ngi nii hmm. xam nga supprimer nañ ko indiwaat ko supprimer waat nañ ko euh, CSE bi am na moment bu nga xamante ne CRAES la woon du temps de Mbaye Jacques Diop ñu supprimer woon ko après indiwaat c indiwaat euh, conseil gën a laay koy wax sax conseil économique social et environnement euh, du temps du président Macky Sall euh, le président Diomaye fay ci programme bi nga xamante ne tëraloon na ko il avait bel et bien dit que bés bu toogee dina supprimer ñaari institutions yi nga xamante ne c'est des institutions yu mu jàppoon ne c'est des institutions budgétivores et sénégalais yi nangul ko. parce que il faut que ñu xam loolu également que ni moom dafa am projet bu nga xamante ne moom la demande woon moom la soumettre woon les les les populations sénégalaises. wax leen ni man bés bu toogee am na ay changements yu nga xamante ay coppite yu nga xamante dina ko def et parmi coppite yooyu moom mooy mu supprimer ñaari institutions yi. sénégalais yi votal ko donc moom si boppam mi ngi ci logique am mais comme ni ñu waxee. ñi nga xamante ne dañ nekk ci kujje gi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci beneen parti beneen beneen camp bi nekkoon ñu nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñi la nekk seen i frère ak seeni i ñu nekk ci yeneen institutions yi nga joxleen leen paak ne leen jam leen seeni i frère et consort cela va de soi que duñ ko def mais nag la conséquence est que tey Bassirou Diomaye Faye va en tirer forcément les conséquences maintenant comme nuñ ko waxee actuellement nii euh, wax nañ ko léegi que ni c'est la première fois que que mu am la majeure partie du temps bu ñëwee commission des lois commission des lois la plupart bras technique rek la danañ ñëw préparer projet de loi bi daal di koy yóbbu plénière boo gisee loolu moo waral que ni commission technique commission des lois même bu fekkee ni dafa voté contre mënul empêcher la tenue de la session parce que y a que la plénière qui souveraine pour prendre un certain nombre de décisions. Mm-hmm. yu mel nii nag ba nga xam am na jeexi jaaxa pendant un moment bu nga xamante ne le l'exécutif a été obligé de retirer le projet à plusieurs reprises c'est pas une première def na am na ñetti yoon yu nga xamante ne ñetti yoon yu nga xamante ne letat du Sénégal l'exécutif a été obligé de retirer le projet yow Chérif wax na fi léegi le 23 juin 2011 l'état a été obligé de retirer le projet mais en 2004 également l'état a été obligé de retirer le projet parce que instant boobu dañ bëggoon changer euh, li nga xamante moo nekkoon sentif donner la possibilité à la CENTIF moom si boppam bu jëlee rapport jox ko le procureur le procureur amul beneen beneen lu mu mën a def lu dul mu jël dossier bi daal di koy jox en juge d'instruction les gens avaient dit loolu noonu dafay dem ba nga xamante ne l'initiative des poursuites du procureur bi am day dem ñu nasaxal ko et en fin de compte Ngouda fal bi fi nekkoon bi mu ñëwee expliquer ñu retirer le projet bi fi ci mujj c'était du temps de Macky Sall c'était euh, en 2023 juillet 2023 vous vous rappelez. bi ñu bëggee modifier article 87. Mhm. bi nga xamante ne dañ ne pour ñu supprimer assemblée nationale soxlaatu ñuy toog ba ans. finalement dañoo retirer dañoo retirer le projet de loi donc c'est pas mën nañu retirer tey. le projet de loi pour éviter que ñuy am déconvenu étant entendu que comme ni ñu ko fi waxee bu ñu demee ba ci biir. pour que affaire bi jàll ça va très compliqué et je pense que dinañ ci revenir. ci euh, euh, kanam alors euh, taxawaay ngay xaar ci way politique yi tey jii fële ci assemblée nationale. Mhm. Euh, ñu def en toute responsabilité rek euh, Cheikh Tidiane et je pense que euh, c' la première fois ñu daal di dàq ab li nga xam ne moom moo di projet de loi constitutionnelle ci li nga xam ne nag moom moo di commission il faut également 90 députés absolument ngir lu nu mel daal di antu xam nga ni itam woote bi ñu ko njëkkee amal ci pencum ndayu réew ma lu toll ci fukk ak juróom-benn ñoom ñoo ne ci ñoom ñooñu nag bokk ci ay député bu euh, Benno Bokk Yaakaar fukk ak ñeent itam euh, ñoom bokk na ci ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo nangu maanaam voix yi nga xam ne ñoom ñoo nangu ñu daal di jëmmal lu ni lu ni itam également bokkoon na ci yenn ci ay dige yoo xamante nii njiit bu réew bu Sénégal doon na ko amal ci jamono yi nga xam ne ñu ngi doon ama amal campagne donc ñu bëri gis nañ ne sax nag du surprise bu taxawee tey gis na ne dafa war a dindi acct ak itam CSE ñu jàpp ne ay këruk lekkaayu xaalis itam ndax mën nañu xool leneen ci loo xamante ni donc gafak euh, gafak ak réew mi dina ci gën a euh, euh, mën a sakkan xanaa tey ñu xaar plénière bi nga xam ne donc moom la ñuy amal as ci assemblée nationale mais également sànq yaa ngi ñëw ci li Babacar wax foog naa ne lu am solo yenn ci ay bankaas dañ ko war a mën a gën a jëmmal donc ñu bañ di nemmeeku li nga xam ne moom moo di instabilité ci li nga xam ne moom moo di suñu ay constitution foog naa ne loolu am na solo di mujj ak maanaam ku ñëw rek changé euh, jërëjëf euh, Cheikh Diop euh, Chérif Mali ak Daouda Mine léegi-léegi dañuy dem ci un jour au Sénégal un jour dans le monde deux septembre 2000